Cheikh Sidi Makhtar Mbacke di kenn ci njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nekkoon juróom-ñaareelu xalif yoonu murit wuutu fi ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Falilou moom jëmm ju sell jilee liggéey liggéey bu rëy ci jamonoy xilaafaam loolu léegi bokk na ca li ñuy ndamoo tey jii ci dindub Afrique bi di jumaay di naan moom Cheikh di Makhtar Mbacke ginnaaw bu ko Serigne Saliou Mbacke sumbee jël palang bi waxtaan ci ak mboolem kilifa yoonu murit ginnaaw bi njiitu réew mi fi woon di président Abdoulaye Wade daal di joxe li nga xam ne moom moo di pàkk bi. fekkoon na yoonu murit amoon ay jafe-jafe julli lu jëm ci wàllum iid ak yeneen yu ni mel fii ci ndakaaru ci bërëb bu yaatu boo xam ne ni manees na ko faa defee ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké fali lu ñëwee nag ci la daal jot ci li nga xam ne moom moo di pàkk bi génne téeméeri million def ko muy jéegu mu njëkk dénk ko El Hadji Mbacké yu fay ba noppi def ko muy jëwriñam di représentant am fii ci diwaan bu ndakaaru ginnaaw bu fi moom Mouhamadou Lamine Bara Mbacké jógee nag moom Cheikh Sidil Makhtar Mbacké mel ne li nga xam ne moom moo di jumaay Massalikul Jinaan daa bokk ci ay naalam bokk ci ay sumbam yoo xam ne nii da koo jox ite ba mu mat sëkk lim ci dugal ci ay milliards ak i koppar kenn xamul nu mu toll waaye itam def ko aajoom def ko aajo yu murit yi woote ci mbooleem taalibe yi ñu daal di joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñaar yi nga xam ne nii moom la Serigne Touba Mbacké santaane woom ci ba muy dund ca ci taarix ci diwaan bu njaareem loolu lee mel na joxe bi daa jiitu laaj bi mbooleem taalibe yi kenn ku nekk yëkkati saw ñaq dugal ko ci jumaay Masaalikul naan moom Cheikh Sidi Makhtar Mbacké daal di yokk jumaay Touba def ko juróom ñaari soorool moom Cheikh Sidi Makhtar Mbacké liggéey bi jotut a egg ci loxoom waaye mel na ni egg na ci loxoom ndaxte ki nga xam ne moom moo koy inauguré di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke joojee jamono moom la defoon jëwriñam euh, dénk ko liggéey bi sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir di ko superviser ànd ko ak jëwriñ Mbàkke yu fay moom jëmm ju sell ji nga xam ne ni daa defoon lislaam muy benn daal ne bu leen kenn koo xam ne ni gémmiñam day génne laa ilaaha illallah doonne ko ci maamam ji Sëriñ Tuubaa Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul liggéey liggéey yu yaatu jëmale ci wàllum social jamono inondation yi bi mu amee ci réew bu Sénégal yëkkati woon na benn milliard daal di koy dugal ngir jàppale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot gi loru ci moom mi leen ndox ak yeneen i liggéey yoo xam ne ni moom Cheikh Sidi Makhtar Mbacké sumb na ko liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa ci jamonoy xilaafaam tey jii nag comité bi nga xam ne moom mooy gàlloo lépp lu jëm ci organisation bu jëm ci ubbiteg Massalikul Jinaan daal di koy jagleel li nga xam ne moom moo di bisub alxamis jile mbooleem njabootam mbooleem yoonu murit waaye itam mbooleem lislaam bi di fàttaliku jëfam jure ji nga xam ne nii du effacé wu ba abadan waaye itam day des di wéy di doon ndamul yoonu murit ba ilaa yow mi diin